Mbacke Sakho yàlla na gudd fan ñëw na fii mu ne xaddis yu yëpp wérut alquran lii la wax doomi njaalo doomi njaalo kata am ndax xam bu leeree santul Sakho santul ñes de baal ma sax ma dugal foofu ànd parenthèse maa ngi nuyu bàyyi diwee Cheikh Mbacke Sakho euh, yéen foog nga boole leen débat waaye nit ku nit ku baax la nit ku baax la euh, ma xaw mais nit la quand même nga régler man bañu maa man bañu maa wuuteeg nit wax dëgg yàlla te bañu ma nit am xalaati boppam man jàpp naa ne diine ji maamu kenn moomu ko bàyyi kenn moomu ko ku ci nekk mën nga ci am sa dégg-dégg nekkal lu la neex gis nga Cheikh Ahmed nit ki su la neexee na ne moom waxuma la quraan yi wala nangam na tuddee boppam lu ko neex in hiya illa asmaun sammaytumuha antum wa abaakum ay tur yu ngeen jox seen bopp rek ngeen rafetal yi ñaawal yi alors lapidation bi boo delloo ci taarixu xadis dina gis yi ñoo ko ci diine ji ah tey voilà yahud yi ñoo ko ci diine ji. noonu ñoo indi lapidation jullit ñi di ko toroxalante seen biir di ko dóoralante. xam nga yàlla waxoon nañu ci alxuraan ne la tajidanna ashadda nnaasi adaawatan lazina amanu al yahud ñi nga di nga fekk ñi gën a bañ ñi gëm yàlla mooy yahud léegi ñun ñu dem jëli xam-xamu yahut yooyu dugal ko suñu diine ji léegi naka la ko yahut yi dugalee kañ leen ko dugal ak fuñ ko jaaree voilà waxoon naa la sànq ci introduction moo tax mu amoon solo bi yonent bi ñëwee Medina communauté yi mu fa fekk ak ñi nga xamante ne dañ koo xeex ba seen doole jeex mënatuluñ ko dara ñu ñëw ñëw tuub uh-huh. tuubu tuubu ñàkk pexe uh-huh. bi ñu tuubee tuubu ñàkk pexe boobu jullit ñi dafa am benn naïveté bu leen jàpp mooy jamono yonent bi ñoom d'accord nañ ne nit ñi ñetti xaaj lañu woon soit nit ki nekk jullit ñu nekk ñu tuddee ko saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soit nit ki nekk soit nit ki nekk naafeq mais ci lendemain bi yonent bi génnee àdduna rek dafa mel ni ñetteeli notion boobu muy naafeq yi dafa mel dañoo disparaître complètement maanaam léegi ñaari temps ñoo fi nekk soit nga nekk jullit ñu tuddee la saxaaba radiallahu anka soit nga nekk yéeféer moom euh, voie au chapitre mais ñetteeli xaaj boobu nga xam ne yàlla waxoon na yonent bi ne ñi ngi ci Medina te bëri nañ ci bëriwaay boo xamante ne yow sax xamoo leen ñoom ñëpp ana ñu fuñ dem dañoo volatiliser wu wala dañoo dem Mozambique wala dañoo demoon seetaan yi match Real Barça mm-hmm. te amul kenn ku wax ne naafeq yi dañoo jeex ci jamono yonent maanaam yonent bi génn na àdduna bàyyi leen fi te ñu continuer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 moo fa ay wax yoo xam ne wax yépp daa juyoog lislaam daa juyoog alquran juyoog sunna si bi salawatu rabbi wa salaamuhu alayhi juyoog ijmaul umma juyoog ijmaul sahaba loo xam ne sahaba yëpp dañ caa dëppoo woon juyoog ijmaul um ijmaul umma mooy li nga li nga xam ne xeetu lislaam dañ caa dëppoo bu ñu al ijmaa nag du xeer yépp la ndax lii lam wax am na ci yoo xam am na ci ñu bokk ci xeet ñoo xam ne ay nit bi daa lañ am na ci ñoo xam ne sax ay yéefar lañ nag àgg na ci waroon tax fiir lañ al mu'tazila waye xeetu ijma yi daa nekk ay façon da nek ay xet al imam ibn hazm rahmatullahi alayhi ci téere metu tudd maratibul ijma ci muqaddim bi day leeral xeeti ijma yi am moy yidi ijma al sahaba ijma al ijmaau ahlil ilm ba ca gën a dëgër mooy ijmaau almuslimin moo ca gën a dëgër ñaareel mooy ijmaau sahaba ahli al ilm nga xamne ay ijma ala yo xamne ne ak wuute am na ci mooy ahli al madina ak yeneen ijma ay yi ci am non la ko al imam ibn hajar al imam ibn hazm di teqantale ci muqaddimatu maratib al-ijma' waye masala yi mu don wax la ci ëpp ijma' la ci ijma' al-muslimin mo ci am bo ci al-mu'tazila ak al-khawarij waye ijma' ijmaau sahaba waye ijma' ahli al lilmi xaasatan ahlu sunnati waljamaa muy ahlu sunnati waljamaa yi nga xam ne ñi nga xamne ne mooy almutasawifa te biir ña nga ca biir waaye almudafa alfuqaha ña nga ca tabir alqurraau ña nga ci biir alluxawiyuun ñenn ñi alluxawi ña nga ci biir comme ni ko alimaamul Bagdaadi di firam fàccee ci alfarqu bayna alfiraq wa kadalika alimaamul Isfaraayini Samaani abil Muzaffar noonu la koy leerale ca at tabsir euh, kon ñetti jotaay yi xam ne jàlloon na leer ñetti jotaay yooyu yëpp daa jëmoon ci benn tomb mooy li ñu tuddee azabul qabri mbugulum bàmmeel ak dundum bàmmeel mbugulum bàmmeel wala xiwalu bàmmeel ndax am na wala amul te dakaar naa leer na lañ ci jot a leer leer na kon dañuy jàll ci beneen tomb ci tomb yi nga xam ne waa ji waxoon na ko muy Cheikh Baye Niass ak suuf yi mooy wax yi wax yi nga xam ne waxoon na ko ci yeneen tomb ginnaaw bi ñu waxee ci mbugalu mbàmmeel pare ak lam ca wax lépp bi ñu waxee ci ak lam ca waxaat ñaareel tomb bi nga xam ne waxaatoon na ko jàlloon na ci mooy lu aju ci li ñu tuddee ak rajmu ndax rajmu ndax rajmu ci diine sax na wala saxut nit ki nga xam ne dafa njaalo fekk mu amoon borom xew wala mu amoon wala mu amoon soxna bu dee bu dee góor la atteb l'islam ci mom moy fat ci anam gusu islam tahdid non lañ ko war a faate loolu it bokk na ci limu weddi moy ñaaral tom bi te weddi bu ka koy jëkk tàmbale moy ngor ci sant ci moo ko ci puus mo nan ko même ko ci bu sax loolu la gëm nak waaye ngor ci mo nan ko nangam ak nangam la ci wax bu ko defé nak mu doxé am xelam da di ci dugg ni mu defé won ay jaaxum ak ay wax yu reuy ay tek tek ak ay juumte yu reuy ci ci ci adamul qabr noonu la def noonu defaatee ay njuumte yu rëy ci ar-rajm tamit def ci ay lënt yu bëri yoo xam ne insha allahu azza wa jalla bu ko suñu borom dogalee yëpp bëgg nañ ci ñëw benn tombar benn koy xaaj rajmu bi dañ ñaari jotaay ñaari xalqa azabul qabr dañ ko defaroon ñetti xalqa waaye rajmu bi danañ ko defar ñaari xalqa wala ñett bi mu ñëwee ci rajmu bokk na ca ca wax wax na ci lu bëri waaye bokk na ca lam ca wax lam ca njëkk a wax mooy daa wax ngóor san si daa ne ko dama laa taxaddi ubbil kaay ba alquran jeex boo ci gisee benn aaya bi wax ci raj ma ma dagg sama cours ci tariqatu tijaaniya euh, loolu la ko wax loolu nag la mu ci bëgg a saxal mooy raj mu wérut ndax bu wéroon nekkul ci alquran loolu benn tomb la ci tomb yi nga xam ne wax na ko loolu nag des na ko radd ndax li bëgg a wax mooy buñ ubbee kaamilu alquran tàmbalee ko ca bopp ba ba fa mu jeexee boo ca gisee benn aaya bi wax ci raj mu ma dagg sama cours ci ci ci at tariqatu tijaaniya loolu lam ci bëgg wax mooy gannaaw ni wuti alxuraan rek kon raj du dëgg ay caaxaan la loolu tomb la boo xam ne dinañ ko dinañ ko leeral ak lañ cay rab fam boobu danañ ko ubbil buntu lu ñu tuddee usturatu laysa fil quran mooy us slogan boobu nga xam ne siiw na si jamono ji ba ci ñu bëri ñu ci tàmbay réer ci ñi ahli sunna wal jamaa te mooy al mutasayifa boo ma nee ahli sunna jamaa nag ahli sunna al haqiqiyya mo tax ñu wax waxuma ahli sunna gi nga xam ne adiya usulafiyya dañ dañ koy wat moom ahli sunna jamaa dafa ñàkk ñaar ahli sunna jamaa al khiyaliyya ak ahli sunna jamaa al haqiqiyya العلامة ابن الجوزي تاع دفع شبه التشبيه لأكف التنزيه لي وخني ني دا آه، فام ньо خاجي دا نيو وراتن بوك اهل السنه جماعه بوك اهل السنه جماعه كون بوني اهل السنه جماعه اهل السنه جي وير ورا خوي باخ مك ني باخ ني نيكون نعم، تي سودو مك ني نيكون تي واي سلف صالح نيكون تي جار تابعين يا سن ньо تخ مي وخ بري ني ابي عيا او في من ньо بوك تي اهل السنه والجماعه بصفه عامه واي بصفه خاصه لا كون اهل السنه والجماعه ييب دبوتي كون wax ji mu li mu bëgg a saxati ne raj mu nekku ci alquran kon loolu loolu mooy ko raj mi du sharia ju suñu borom wàcc maanaam du diine loolu dana ci ubbi benn bunt boo xam ne lañ koy màndargale mooy usturatu naqdu usturati laysa ma fi alquran mooy slogan bi nga xam ne tàmbali naa siiw mooy boo waxee dara lañ naa la ndax mi ci alquran wala niwu ci alquran xadis moom bu ca nekk xadis moom waxa waxatuñ ko léegi daa nekk manqué ne valeur te loolu faaw ñu leeral ustura boobu faaw moo rañaan faaw ñu leeral ko lënt yi ci aju yëpp ñu daal di koy leeral ñi nga xam ne dañoo am ay lënt ñuy leeral leen di ustuura bi ustuura caaxaan la ustuura mabbu lislaam la néewul ci alxuraan néewul ci alxuraan kon du sharia loolu mooy benn loolu benn tomb la ba ca degee mooy ci biir wax mi wax ci biir bi wax bi wax rajmu dugal na ci biir raj ci biir wax ji mi wax rajmu loo xam ne xëy na bokkut maanaam amul alaqa watiida amul benn ratio bu dëgër ak rajmu waaye gannaaw wax na ko rek te rabbi te tontile faaw matale faaw ñu boole wala ko ci حديث بيسون حديث بيسون عيسى wax ne inna allaha la yanzuru ila a'malikum wala ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum nga xam ne day mel ni atam day wax ne yàlla xoolul seeni seeni image seeni mouvement seeni yaram waaye seen xol lay lay xool mu ne xadis boobu mooy mooy takkal na kon kon nit ki kon xale bu jigéen bi jigéen bi bu ko neexee mën naa muuru mën naa bañ a muuru loolu wax na ko ci biir wax na ko ci biir donte donte masalatul xijaab te bokk na ci yi wax loolu na ci ñëw maam lii ci masalatul xijaab la bokk waaye comme que da ko wax ci biir bi wax ci arrajmu moo tax ñu boole wala ko ci waaye masal xijaab masala boo xam ne danañ ci ñëw insha allah azza wa jal ci ci la wax ci penc moom yi loolu nag def na ci taxaw waaye du yàgg insha allah azza wa jal ñetteel bi mooy mooy bi ci gën a rëy te gën ca aajoo leeral nag muy jaaxu bi gën a rëy mooy nee na sëriñ bi nee na sëriñ boobu nee na muy bay Cheikh bay Cheikh Baye nee na ahadis yi wax ci rajmu fii ñaar ñaari wax la wax yu bokkul bi ci njëkk Cheikh Baye dafa wax ni rajmu yahudi ñoko jël duggal ko suñu suñu diir ci a ngor ci talaat ko mu gën ko leer daal ne la manam au lieu que ci xam-xamu yahudi lañ ko jëlé mu ñu dugg ci diir ci loolu benn la mu ne yahudi ñoko duggal suñu diir ci loolu di tooñ reey reey ci islam waye di reey reey yunus rëy yonent alayhi salaam mi nga xamne moko wax def ko waye di reey ci sahaba waye waaye reey reey ci xeetu islam rawatina ahlus sunnati wal jamaa'ah bu raj comme ni comme ni waxé won ni azabul qabr ci hudu la rek comme waxon nako mom nak ñaar ya day wax lu bari bari na ci ci yahud la jógee wax na ba sax na nafkh wax na ko nañ ñu nañu abdul waaye mu ne raj bi ci hudu la jógee way nga yaaka ne ca la yem mu wax ci ñu lu gëna day waaf gëna reuy mu ne ahadi euh, ngor ci laaj ngor ci sax si dañ koy raj nako ko waaw waa kon yahudi nan lañ def do ko ci biir muy raj bu am solo ngor ci limi day war day war lañ nako raj laaj bu am solo sax ba defo ni rad mu ci yahudi la jóge yahudi ñoko jël duggu ci sunu diina ji ñu koy jaamu suñu borom azza wa jal loolu wax ju reey la waaye ngoo sen fi laaj lakko nako yahudi yahudin yan pexe lañ def ba duuga suñu diina ji waye diglu lam ko tontu cheikh bay tontu ko nako manam nañ ko duggalé moy nafiq yi nga xamne dañu duggu ci islam te ñu islam waye dañu duggu ci islam non rek ngir ñàkk pexe da ak na faato ñom ñoo tuumal yentu bi alayhi salam ñom ñoo yonent bi neena salaam nee na raj moo wax raj ñoo léegi saxaaba yi ngir bëgg lu baax ak bëgg jaam yàlla daal koy dégg ci naafeq yi di ko jaamu suñu borom allahu akbar mu daan ne mu daan koy talxiis mu waxal ko ci anam gën a laay mu daan ne maanaam axaadis yi wax ci rajmu naafeq yi ñoo ko nekkal saxaaba yi jële ko ci ñoom inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu des na ci ñëw leeral ci ay wax la yoo xam ne dara amu ci sëriñ boobu yi wax jooju mu wax Cheikh Baye Niass moom yi sëriñ bu baax boobu wax ji wax ji mu wax dara amu ci dara dara demeewu ci noonu dara des na ko leeral insha allah azza wa euh, bu ko wax ci ma yowoon danañ indi lu mat ñetti téeméer ñetti téeméer yoon yoo xam ne jaar na ci jaar na ci téeméeri saxaaba yu bokkul yoo xam ne ñoo nekk rajo waaye xëy na loolu du ci xaj indi lu way rek loo xam loo xam ne dana gën a leeral mbir mi ne lu wér la waaye xoolal fii li wax mooy nee na ah, xadiisi raj mi ñu ñu euh, duggee ci lislaam mooy naafiq yi ko nekk ci asra mais ne xadiis raj mi daa nekk sunna xawle yi dong foofu dafa def njuumte ak njaxas moom pour moom dafa moom dafa yaakaar ne xadiisu xadiisu raj mi daa sunna bu xam nga bu nekkoon sunna xawle yi dong bu waxee ne naafiq yi ñoo ko def ci islam doon doonte wax du nekk du nekk lu wér waaye dana xaw a xaw a maam dana a suuti ndax gannaaw sunna xawliya la maam sunna sunnay wax la mën naa am ña naafiq yi bañ koy ne bañ euh, euh, maa ngi islam naafiq yi mën na mën nañu wax ne ko naafiq yi dañoo fekk dañoo fekkuñu asal waxi foo xam ne yeneen saxaaba yi fekkuñu ko ndax loolu loolu day am ci diggante saxaaba yi mais am na saxaaba yoo xam ne léeg-léegi bu ñuy bu ñuy bu ñuy fekkee fu ñuy dax dina tari benn xadis ñoom am na ci ñoo xam ne duñ ko fekk loolu moo tax waram xam ulama ul xadis ulama ul mustalax dara ubbi benn buntu tuddee ko maanaam buntu moo xam ne mooy mursalu saxaaba yi mooy am na ci saxaaba yoo xam ne la ñuy nettali ñu asala moo ko wax wala moo ko def fekki wuñ ko ñoom waaye nag foo ko yidib alayhi salaam di nettalee ñoom fekki wuñ ko wala ko fi atam bi defé ñom fekke wuñ ko waaye andal rek dañu wax ngir atam def na wala wax na loolu li koy waral loolu ñu tuddee mursalu sahabi mursalu sahabi ne ahlul hadith yëpp dëppoo na ci dañ koy nangu yoxtaju bihi xajja dañ koy layo kenn mo ci wuté wala ay benn benn te ci wuté ñu ci bari ay mutakallimuuna lañ bokku ci ahlul hadith bokku nak ñom al imam abi ishaq al israili alayhi rahmat rabbil alamin comme nek khafid ibn hajar wax ci annu kat mom al ashari imam al ashaira fi zamanihi mu abi ishaq al israili mom da caa wuté وهي مرسل الصحابي لجنب موي مرسل الصحابي في حكم الموصول يعني في حكم المتصل متصل في متصل ارسال الصحابي موك ارسال ما انا مرسل الصحابي غا خامل لي داي نفر واي فك انا داكو نتاي بين الصحابه ان علم الحديث بو غيسه ني اوبي بونت لي انواع انواع التقط في علم الحديث نيار غير نك خام ساق دي رك موكاي وار واي بو ندي با خامني ديغنت بي امنا كو فور نوك كوكو با رخ خام نان كان لا maanaam loolu da xamuñ si waaye xam nañ ne xam nañ ne si loolu saaqit du rot loolu moo tax mursalu saxaaba dañ koy daal di nangu léegi nag kon diggante saxaaba yi am na ci ñoo xam ne dañuy nekk loo xam ne fekk ci salaam waaye nag dañ ko jëlee ci beneen saxaaba mel ñoom loolu moo tax mursalu saxaaba yi ñëpp dañ koy waaj a nangu fa ñu wuute mooy mursalu mursal yi nga xam ne mooy mursalu taabiin te loolu ak wuute am na ci al imaam Shaafi'i na ay charte charte yu mat yi koy yo اليوم مالك فايلا يو اليوم ابي حدي آه، احمد غيره يشي رواية تنكم في ابن خدام ودنك لي كذلك حافظ كثير صحر لك كيما شيخ سارو علي الحديث على كل نبقى خموي آه، واحد مو دا جاب احاديث رجل سنة قال فيك احاديث رجل دا نيك لو خمي اسان دوكو ديف ما دوكو فراتيكي صحابي ديكو جيس صحابي ديكو جيس دوبين دو نيار نيكو جيس جيب كين كو نيك نتل واي وقت ناني احاديث رجل نافقي نيوكو نسل كون بوبيتك كون بو كون ان شاء الله عز وجل مولم ني مالاي واجو دي في حلقه دي تي ني نتال احاديث رجم كون جاب نيب اي نافق لا مي واخ جو خامني مانام لوازم فاسده مام واخ جو ري ري نافق يي نيو كو نتالي صحابه يي بغلو باخ يي بغلو باخ بون لي تمي ني نيو كو صحابه يي ديغ كو سي نافق يي نافق اند نافق يي رك بغون نك مي واخ مي واخ احاديث رجم كان تي نافق يي موكو بيت موكو نتالي incha allah ina azza wa jalla moom bu fekkoon ni eh, sëñ bu baax ne nangu woon naa nangu woon naa niqaash nangu woon naa dugg indi boppam samp boppam ngir munaaqasa layal li ñuy wax ko laaj léegi juróom fukki saxaaba ngi nii eh, gannaaw nga wax ne naafiq ñoo ñoo ñoo ko nit yi alayhi salaam kan moo ci naafiq wala ñun ñëpp naafiq la kon boobaa kon boobaa boobaa la mbiram di gën a leer boobaa amaana lu lu loo xam mbir la am na yu muy nëbbu yoo xam dana leer boo faaw mu tasriix ci ne diw mii mooy naafiq bi ko nit yi alayhi salaam te boobaa tamit yaakaar na du ajorant maanaam waaw lu bëree bëri dana dana leer dana leer ci bëri waaye nag lil moom mi ko wax xëy na euh, nanguwu ci jaamaarloo nanguwu ci jaamaarloo euh, lu bëree bëri loolu day firndeel it wax ci kon du wax ju wér moom li ko li mu wax du wax ju kon tom boobu mooy bi ci ëpp solo suñu xalaq tey gi mooy wax gi mu wax ne rajmu ci yahudi lañ ko jëlee muy benn ñaar mu ne ahadis rajmu naafiq yi ñoo ko ñoo wax saxaaba yi yonent bi salaam moo ko wax الصحابه سن بغل باخا كجي لول داني كو ليرال بور بي احاديث كن كو نخ ني اندي صحابه كو نيت لي خول باخام كوك ماي نافيخ بو ديت سوي سن برمي عز وجل انا ني من دا بكاي ديفي بسول يالا امول بن نافيخ بو نيت الحديث رجو امول امول دا امول بل تخ بل تخ امول بن نافيخ بو نيت الحديث بو خام دجي سوكو با حديث ني امول بن نافيخ بو نيت خلا مو نيت حديث موضوع بو خام ليرال ني حديث بيد من ودع الزارقه كوم نيت اهل الحديث ليرال بنن توم بي موي بوكو نتي لام واخ موي الزاني الزانيه والزاني laa ji nekk sootu nuur mooy firndeel ko raj ba amul ndax ndax wax foofu dafa jaxase benn qaida usul boo xam ne xëy na da ca juum xëy na daa gis ne azzaani daa nekk mufrad boo xam ne dañ ko laafal dañ la xam nga liif ak laam ci mufrad day taamim day généralisé comme ni ko ahlu usul di waxee liif laam ci baat boo xam ne mufrad day taamim comme lu mel wal asri inna al insaan waaye nag li fekk amul moom nag daa fàtte ne am na dalil buy taxfiif lii loolu laay gi nga xam ne moom du moom moo ko njëkk a jël waaye daa am ci jëm ko fooy moom Cheikh bay daa dem ci maanaam laay jooju ci suurta nisa fa ali fa alayhi alayhinna nisfu ma ala al almuhsanat min al adab laay jooju yi nga xam ne ñami dellu moom moom la ñuy jël di ko ngawti ngawte di wax ne kon raj mu soxul ndax raj mu rek laay nas ndax foofu day wax ne yuntu day mel suñu borom day wax ni maanaam jaam ñi liñ leen mbugalee mooy genn wàllu ñu mbugalee gor yi te raj moom ak ray la moom te ar raj mu lay tanafas loolu firi na kon rajo ay caaxaan la loolu nag du caagi ñam ko jëlee ñooñu ay cuuc ñam ko jëlee maam ñooñu ndaw lañ ci bunt bi xëy na moom ko jëlee ci ñoom Mansour ka yaay léeg ajjinan Ibrahima ak concert googu nga xam ne ñooy wax yu mel nii waaye li yàgg na fi boo demee ci tawilu muxtalif al xadis bu al imam ibnu Qusaymata rahimahullahu azza wa jal mi bi muy bi muy tontu al mu'tazila rawatina an nazamiya Ibrahima Nazam ak Abul Husayli ñoom ñoo doon indi laay yii wa kazalika la jiitu sax ñoom la jiitu al mu'tazila al xawaarij ñoko dar wax kon ci ñom lako jëlé nga xamni waji di ñom lay jëlé da naka indi fi lu def juróom-benn tombi bi mooy waa ci wàllum nasx boo xoolee Cheikh Baye Niass nee na nasx nasx bi bi bi muy leeral ma maanaam xadis xadis bi wax ne am na aaya juróom ci alxuraan ñu la koy nasaxal mooy al cheikh wa cheikhu isa zanaya farjimuhu farjimuhuma albatta mu ne laaya jooju mu daa ne naf sax ndem am na ci mujj gi mu daal di lënkal ne naf sax amul mu ne ndem am na mu daa ne sax danañ ci waxtaan waaye li mu lënkal boo ko digal day mel ni kon naf sax amul loolu de loolu neex ci yaatal xëy na tey jii waaye bokk na ci mu wax bokk na ci la mu wax nga xam ne moom mooy gën a firnde li kii dafa am ñu ñu bëgg a défendre mooy nee na ahlu sunna dañuy tuumaal ñeneen ñi la ko wax ne tudd sax seen seen tur nag dañ dañuy tuumaal ñeneen beneen أهلم جيب له ماي نم جيب تاني من جوجي خم جانا ماي الشيعة الرافضة خم جا بوكي الشيعة الرافضة الشيعة اللي نيك نار بتام الشيعة يو خم ني نيوم دنيو جم لينجم وينك عندك نجم من القرآن القرآن جم من القرآن أدنيو جم دانك اللي تبرر ولا يقول أفوك أهل ما علني ولا يقول سمع ماي لينك أي فروع أك صحابي أجد منه أك عدالة الصحابة نيو نحن نيو ترى له نحن نيو نحن نيو ترى ما أنا أمريكي شيعي وخلنا سين خلاف أكهل سمك خلاف بسيط loolu moo tax boo demee ci saxiixul Buxaari wala nga dem ci saxiixu Muslim nga gis ñoo xam ne dañu ne ci biir asar dañu gis ñoo xam ne ay chia lañ bal sax ki jiite woon benn kuréel di kuréel zaydiye yi muy alxasan ibne saalih moo jiite woon kuréel bu ñuy wax albuturiya benn kuréel la mooy benn kuréel ci ñetti kuréel ak zaydiye te chiatu yu njëkk ya alxasan ibne saalih xanaa mooy kilifa ka kooku alimam muslim nettale na ci moom comme ni ñu ci saxiixam loolu moo tax ibnu taymiya boo dem ci minhaaju sunnati nabawiyya fi naqdi kalaam chiati alqadar day wax ne ñaata yoon la buxaari ak muslim nettale ci ay chia طيب نيوخا من تشجيع من تطلاره ما بدون أكثر شيء شرط وايد فهمت الشيعة دي يبريك الشيعة نيوخا من يقوم الأخرى جيمة الأخرى جيمة نوشة مهدي مورد وخنا الأخرى جي فجأة نيك دب ليس بكر ما نام أه، شير أي بين نيرد وخنا الأخرى جي فجأة نيك دب ليس نيك جام كيال بكر مهدي مهدي بنيو دني إن الأخرى جي مرتك الأخرى الأرزنا بكر فين باي بجام شمر معزوز سرول من تير الشيعة بري بري لولنك xëy na am na téere yi ahli sunna jamaa loolu xëy na ashia firaafi da wax dañu naan lii ci yéen léegi wax bi mu wax ne wax bi mu wax ne ahli sunna dañu tumaal ñeneen di la wax ne yéen da ñoom dañu wax alxuraan daa manqué nanguta wax ñooñu de maanaam nanguta jaar seen tur dañ ne ñeneen waaye ashia la a wax loolu nag incha allah azza jalla xam naa ne mooy tomb mujj bi ci bi ci xalaqaatu rajmu bi des na leeral incha allah azza jalla yooyu yooyu ñuy rotal ci téere yi ahli sunna jamaa leerate ne amul ci téere ahlu jamaa amul ci benn xadis boo xam ne man amul ci benn xadis ba ci abdullah ibn mas'ud mi ñuy wax ak ubay ibn ka'b ci falax ak naas ak yeneen ak yeneen yooyu ahlu jamaa rek lañ lépp waaye wax gi mi amul ci téere téere yi ahlu sunnat wal jamaa laa wax ñun ahlu sunnat jamaa amul ci suñuy téere luy firndeel ne alxuraan jimatul wala kenn ko ko wax ci làmmiñam amul li li ko am kay bokkut ak la ñuy wax te ashiyaatu rafida ñoom dañuy wax ne alxuraan ji dafa taxrif firnde ji rek التبدي ختاز في الفيديو فصل الختام في تحريف كلام بالأرباب إن جن يتيم الرواية وخن رواية رواية بنك لا يخن الأخرى مرض يتيم الرواية خلينا نجمع بقى نقول أهل السنة والجماعة أكيد أنا بيرن كيم توخن يي ما يي أي أجي بلي وقت الرقاج متبين بس نك دانك واحد يري يري نعم أوكي جنا بلو ليري آه، ليل وقت الرقاج أمن أمن يا خن وخن قلت بيندكم إن شاء الله عز وجل واي خير جرمنا لا جرائم ولا جرمنا لا جرائم نا نا إن شاء الله عز وجل ba ci nek moy som bi nga xamne ci la ñu tàmbalee ko muy bi ci gëna reuy moy wax gi mu wax ne raj mu yahudi ñoko duggal ko ci sun diina ji ngor ci laaj ko nako ko nan lañ ko duggalé mu ne naafeq yi nga xamne dañu manam dañu dugg ci l'islam di mbubbal ci gëmu ñu l'islam te nek ay naafeq nga xamne dañu ñak ñàkk moy dugg ci l'islam ñom ñoy dem bëgg sank sànq jullit ñi daal daal daal leen daal di netali sahaba yi yunus alayhi salam mo wax mo wax nangam ci raj mo wax nangam ci raj mu sahaba yi nak ci bëgg ci bëgg lu baax ak da ko gi ko dal mu daal ne ahadis yi ciy wax yooyu lépp naafiq yi ñoo ko nettali saxaaba yi saxaaba di ko jëfe ñaari njaaxum la yoo xam ne wax na ko taw nekk lu rëy rëy kon mbokk yi loolu buñ koy tontu dañ koy tontu ci benn tomb mu làmbaale ñett bi ci njëkk mooy euh, tontu li dañuy indi ay ahadis dañuy rotal ahadis yi nga xam ne moom la yuntu maanaam ahadis yi nga xam ne moo saxal raju ahadis yi nga xam ne ñun jullit ñu ci la ñu sukkandiku arisa na ci la ñu sukkandiku wa saxal mooy saxal ne rajm lu sax la pare bala ngaa radd ak di mën a bala ngaa radd bala ngaa radd yeneen tomb yi defal taxsil ba pare axaadis yi nga xam rajm yi ñu weddi sharia rajmu sunna si yonent bi alayhi salaam yonent bi salaam moo ko wax su làmmiñam yemu ca mu daal di koy digle yemu ca mu daal di koy def maanaam yonent bi alayhi salaam da koo jëf da koo wax ci làmmiñam digle ko ba pare digal saxaaba yi ne ko def leen ko jël leen ko na bokk ci jaamu yu suñu borom na bokk ci sharia moo wax ci làmmiñam muy sunna xawliya ñaareel bi sunna fi'liya muy sunna tatbiqiya muy as sunnatul fi'liya yonente bi alayhi salaam tamit kadalika daal di koy def ci kanamu saxaaba yi waaye yemut sa loolu ali saxaaba yi ci ginnaawam ñëpp ñu ñëpp ñu def ko Abubakar Siddiq dajale saxaaba yëpp ñu def ko Omar ibn Xattaab def ko waaye Ali ibn Abi Talib def ko léegi nag tontu bu njëkk bi mooy lambaale leeralaale nit ñi ci ne rajmu lu sax la ci sharia ci ahadis yi ñu waaj a rotal te yëpp daal di wér li ci rot yi xadis nee naa la mat na li ci rot ci ay turuq ci ay yoon donc léeg-léeg benn xadis mën naa mën naa ay yoon yi bare bare waaye loolu dafay gën a wéral mat na ñaar téeméeri yoon te yoon yooyu yëpp téeméeri yoon ak juróom-ñetti fukki yëpp dafa wér li zaatiha li ci des yëpp daa li ci des daa wér li xayrihi kon dana lambaale kon leeral ci ni li wax ji mu wax ni ci naafiq liñ ko jëlee kon saxaaba xadis yi may waaj a nekk li mbokk yi benn mooy saxal ni mooy saxal ni raj mu lu sax la ci sharia wedd di waxam ji wax insha Allah amul ñaar saxaaba yi ko nettali lañ bëgg leeral lañ lañ leen bëgg wax seeni tur ba xam ñii ñooy naafiqi wala déet ak wax gi mu wax ci yahuud la yii lañ bëgg leeral mbokk yi bi ci njëkk mooy mbokk yi rajmu lu sax la ci sharia maam daa bokk ci daa bokk ci daa bokk ci daa bokk ci al xududu sharciya mooy li nga xam ne suñu borom moo ko tëral ci diinam ji ñu ci tàggate doomi ñu ci yar doomi aadama yi suñu borom azza wa jalla moom la soob اللهم نصرت دينا دي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة أه، رجم دقن تولى جرم ليسن برب عز وجل ديرك رجم دقن تولى جرم ليسن برب عز وجل لو دنا خبالي رأسي أدل من الأدلة العقلية خمني خينا موخو قواي نيكو جيري نيكو دنوخ يأي فاو نيرتوك نخرج بمون رجم دون قواي فاو مجمالة نمي جلي ما نام ينتبع عليه السلام دا وقت حديث ور نسن برم أمنا تيمير يرمي رجو خمني بين الواجه أدنى doomi aadama yi li ñu yërmande ñi am ñi ëpp yërmande ci àdduna doomi aadama yi seen yër seen yërmande ñi yërmande seen biir ba ci baahima yi eh, loolu mooy tolloog benn yërmande ci téeméer yooyu yi yeneen yeneen yeneen juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yëpp suñu bopp da koo làq ba keroog saa ci taxaw kon doomi aadama àdduna bi léeg-léeg gis doomi aadama yi léegi-léegi yërmande gi ñu yërmande seen biir sax loolu benn la rek maanaam benn la suñu borom sàkk ci téeméer yërmande yooyu yi jox leen ko ci lañu yërmande ba ci lañu yërëme baahima yi léeg-léeg yéen mbay mi ci lañu yërëmante wa kazalika doomi aadama léeg-léeg ci la nday di yërëmee doomam ca la doom di yërëmee waajuram euh, ca la nit di yërëmee ñaari waajuram waaye ca la nit di yërëmee doomi aadama ñu nekk nag yërmande googu moom ba adduna di xëccoo kon gannaaw loolu moo am kon atte suñu borom ñi azza wa jalla ci arrajmu loolu tekki wut ak ñàkk yërmande suñu borom ñi azza nañ ko leer kon li ci nekk may wax na ni euh, euh, rajmu yahuud yi ñoo ko dugal ci bid'atam lolu du wax ju am bu ñu demé ci saxiyu muslim hadith bi ci ñek bu ñu demé sahih muslim ci numéro 1690 ci buntu al hudud kitab al hudud ci babu hadd al zina muslim nee hadathana yahya yaxya yahya tamimi axbaranaa hushaymun mooy husayn bashir an mansuur an ilxasan an xittaan bni abdillahi arraqaashi an ubaadata bni saamit ubaadata bni saamit qaala قال rasulu llahi sal allahu alayhi wa sallam خذوا خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والسي والسيب بالسيب جلد مئة والرجل حديث من جسد مسلم ينتب عليه السلام ما حديث كم مغني تلي بفرح بل ينو نانا نعم، نافع قيم يوكن تلي ينتب عليه السلام داني أسلم وقال صحابي بقبرة كجف لاجي كتنجك ما يعباد ابن الصامت حديث بيك كونت الميكان ما يعباده ابن الصامت مون يدعو عليه السلام موكو واخ عباده نينا يدعو عليه السلام موم موكو يدعو عليه السلام موم موكو يدعو عليه السلام موكو واخ سلامي بالا يدعو عليه السلام دا نجي كليرال موي حديث بي موم في الحديث بري يدعو عليه السلام واخني خذوا عني خذوا عني جلي لين سي سين دينه جلي لين سي سين دينه داكو واخ نياري كو لول توكيد فان يدعو السلام بو فكي دا توكيد انواع التوكيد موي موي تكرار ام جمله تكرار ام جمله توكيدي yi daate na jëli leen ci man seen diine waxaat ko ne jëli leen ci kon nga xam ne daate na li waa jox yor na ko mu wax mu daan aadama joo xam ne ab xiij la daa di jaxasoo aw ab xiij kooku ab yaram kooku nañ koy ta nañ koy tàggate ci sariya mooy dañ koy dañ koy duma téeméer yar ba far daal di koy absent lu mat at loolu ak loolu war a xoolee ay yeneen ahadis ñëw loolu xëy du sunu boo ko ci tàntee mooy ndax li ñuy tuddee ak loolu war xam wuute nañ ci waaye déglu yonent bi alayhi salaam mooy wax yonent bi alayhi salaam nee na al bikr lu bikr al bikr boo xam ne dëppoo nañ ci ne mooy kan al bikr comme comme ni ko alimaam Nawawi waxee ci bi muy sarx Sahih Muslim nee na waalam anna al murad bil bikri min ar-rijaali wan nisaa'i man lam jaami' fi nikaahin sahiih wa huwa hurrun baalighun aaqilun sawaan kaana jaami' bi wat'i shubha aw nikaahin faasid bikr mooy ak xiic mooy koo xam ne xëy na bu dee jigéen la musta xam góor moo xam ne musta musta xam góor musta jaxasoo góor musta musta musta góor musta sëy nga xam ne ab xiib la bu dee ci góor mooy koo xam ne musta xam jigéen maanaam musta jaxasoo soxna yi nga xam ne musta jigéen bu yàlla dogalee ba góor gi nga xam ne musta jigéen xëy daal di jaalo wala jigéen gi nga xam ne musta xam daal di jaalo yonent bi alayhi salaam nee na ab xiic bu jaxasoo abub xiic kooku lay attam ci sharia mooy duma téeméer yar waaye la ñor ñun la la nga xam ne moo ci ñor mooy wa sayyibu bi sayyibi jildu miatin wa rajm yonent bi alayhi salaam nee na ab jeeg wala koo xam ne koo xam ne maanaam السيب ميلا كم يفعل النبي النبي والمراد بالسيب من جامع في دهره مرة بنكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر والرجل والمرأة في هذا سواء والله أعلم السيب ما يكون ما يكون خمنا مثلا خم جور كو خمنا جتنا خم جور اليوم ناوي السيب mooy koo xam ne jot naa xam góor mas naa wax dégg mooy ko euh, euh, waaye nag mu xamee góor bu fekkee ji mu xamee góor ci ci ci ci ci sëy boo xam ne sëy bu wér la maanaam koo xam ne mas na am na am na borom kër rek koo xam ne am na boroom kër maanaam koo xam ne dafa am boroom kër ba pare daal di njaalo wa kazalika góor gi nga xam ne dafa am soxla ba pare daal di njaalo ñun ñu lu asam ne ñaar ñii ki am boroom kër wala mas a xam góor mu xam góor mu xam góor wala ki am soxna wala mu xam jigéen ku ci njaalo say ñu daatan ni ne sa baata sharia mooy jël jaldu miatin jaldu miatin afwan war raj jaldu miatin war raj jël waaye jaldu miatin war raj dañ ko war a duma téeméer yar waaye nag war raj mu yudub alayhi salaam moo wax kon bu fekkee da ngaa xam ne raj mu saxut ci sharia li mu wax ci alxuraan dañ ñëw maanaam ñu koy weddi jëpp ñaar naan daa ñëwoon ci alxuraan ñoo koy nasaxal waaye léegi dëgg la nasaxal nga ci na ci sunna moom koy boo koy weddi da ngay taxaw ne léegi man maa man xam ñu wut suñ jaar ak yow waaye gannaaw wa gëm nga xam nga ne gëm nga xadis pare nag gannaaw léegi d'accord alxuraan léegi nas loolu dañ ci ñëw insha allah azza moom la ñuy def toog bu jëbi insha wa jal lam ci ndax dañ ko nasaxal léegi ñoo na gi sunna nag ñaareelu masdar ci julli ñi fiy jëlee seen diine لغا لو لوي خا تي حديث بير من جي مسلم حديث بير من جي صحيح مسلم كوم كوم ريفانس مالا جوخ سانك يونتو عليه السلام دا ني كيب كو خامني حديث بير من جي صحيح مسلم تي نمر مالا جوخ سانك وكذلك ابي داود رحمه الله تي كتاب الحدود تي سنانام مي حديث بير نمر 4392 اليوم تيرمي رسول الله صلى الله عليه حديث بير تي نمر 1434 الإمام أحمد بن حنبل رسل نقول له يون في مسندم رسل نقول ترانسان بن آه، وكذلك الدار يرى تلقى جسنا نم كي ميل آه، ما ما نم كي كي فوليم دو كي باس ساكة من أونز اللي هو إني ما يرى تلقى كي دو ميل سيسان تنقان من حديث بوخان حديث مسلم رفل قوت كي نمر بمالي مخمسا قن يوتيوب عليه السلام كي جمم يوتيوب عليه السلام كي جمم مم وخني أب جيك نت بفكي لا جالو تخبغو آه، تأمبرم كر ولا من جالو تأم صحنا كوكو أب أتيم ويدن كوي رجمو yunus bi alayhi salaam moo ko wax kon hadith bobu lan la lan la jublu mooy ñaari bir ñi wax ne rajm amut wala wala saxut ci sharia lolu ay lolu lolu du wax ju am ndax yunus bi alayhi salaam moo ko wax ci asan neena alayhi ngeen ko jëlee ci ma da baye xel len li sunna xaw yonent alayhi salaam ngeen ko jëlee ci ñaar moy Cheikh Baye neena na mboole naafiq yi ñoo ko ci yunus bi salam yunus yonent salam saxaabi ko jamo yàlla fofu laj bi moy ki ki ki nata hadith moy ubada ubada Ubaada ibn Saamit kii كان لك صحابي الأنصاري ما كنت صحابي صحابي مجي ما كنت صحابي خم جت من يوم مقل القرآن بق نكون كلام فورك صحابي بل تحن تحكم من يوم جاء الإصابة أهل الصفة لأن لم جنجل القرآن لأن لم صحابي بري بري ما لم جنجل القرآن واي صحابة بي نكون صحابة بو خم نيون تبع عليه السلام كيدا نكي موم أم صحابة أمين جنين واي بقون تي صحابة ينخل من بوليم خريد عبد الخريب سكن سكنكو خريد عليه السلام xare yëpp ba xasootu badri yuntu alayhi salaam wax ni suñ borom da ittala ala ahli qaal i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum kii bokkoon na ci bokkoon ci saxaaba yi gën a mag amul kenn ko ko qadxe ba ci ashia ci jëmmam ashia ci jëmmam am na ci ñoo xam ne dañ koy défendre shia yi li ñu day wàcce saxaaba am na ci ñoo xam ne dañuy défendre ubada ibn salik ak ak saad ibn ubada ngir ay mbir kii day bu fekkee ne ubada ibn salik mii nga xam ne ab saxaaba bu mag la moom moom moo nekkoon ab naafiq bu fekkee moom ngi moom da nettal na ko إذا أنا فيقي نيانة الحديث بلا من جلل كأنه عمر وسامي دخل أبناء فيقي وردت لولو أبلا دلبو خمني ما يجي ساكو شبوكي كوكو من الله نقلت من داوخني لم وحني صحابة يشي نافيقي نيوكنا جلل عمر وسامي كني من موقنت نيوكنا تري لولو دانيال حديث بي مسلم نطلع نقو نطلع نقو كي بينان سنة بو خمني كي عمر من عمر الناقل جار مجلجه الشريم مجلجه كي منصور يعني مسلم نتل نتل وان نتل نتل يون شو سمت بوخا نبي نجار عبد الاعلى يجي عشان ابن عبيد المسامد دا عبيد المسامد ان كان نبي الله اذا انزل عليه اذا اذا انزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فانزل عليه ذات فانزل عليه ذات يوم فلقي كذلك او فانزل كنت عليه السلام داري وحني ما نجيك جيك كي خن دا دا نيا فك ام برمكر كير ولا ولا ولا ام لو dañ ko dañ benn liñ ko yaree mooy dañ koy mu waaye nag bil xijaara ci ay roj nga xam ne lab bee amuta bil xijaara waaye lab bi dafa da ko gën a fiddee mooy bil xijaara nga xam ne kon yonent bi alayhi salaam moom moo wax ci làmmiñam digle ñu rajmu beneen mooy ñeent laf yi may indi yëpp mooy lab bu Ubaada ibn Saamit foofu bi mooy euh, foofu liñ koy raj mooy mom yow dangaa wax ni nafiqi ci dem mom ñoko ñoko ko sahabi sahabu bara legi ubada amna ubada mi am na ubaada ndax la kay bo ci naafiq wala man nga bakay koy nafiqi naafiq ñu wax mu mu lu la cee tuddal fukki fukki naafiq ak juróom mënu ko te rag ma dama ko taxaddi bu degge sama degge li dañ ci ñëw mënu koo indi day iddaa ci lo xamni amul katal bi ñaareel bu góorgóorlu ba indi ma fukki ñoo xam ne tudd na ta tek ko ci xam-xam ba sax ñi ay nafiqi lañ ñi netal ahadith rek mu ëpp nañ juróom fukk ci sahabi yi yoon yi yoon yi ci ñëw ëpp na ñetti téeméer wala sax mat na ko bokk kon loolu du loolu wax jooju du wax ju wér te it du wax ju am kon Ubaada Misaan yi nga xam ne daa bokkoon ci ñi gën ci saxaaba yi Ubaada nii Ubaada Misaan yi nga xam ne bokkoon ci ñi gën ci saxaaba yi ñi gën a tedd ci saxaaba yi saxaaba yi bëri jàngal leen alquran ba ñu mokkal ko ahlu sufa moo leen daan jàngal alquran waaye sëñ bi maanaam mboolem xasawaat yi ba daf ci bëri yi ci ëpp fekke na ko yonent bi alayhi salaam woo ko ba mu ñu daal di koy ñaanal kii la wax kon bu fekkee kii moo nekk xadis naafiq lañ kon boobaa subhanallah fi alim pareel pour sànni l'islam pareel pareel pour xam ne ji ne ñi nettali ahadis kon loolu mooy afatu minuna baadi la baadi mooy naafiq bi la ko moo la nettal ko jaamoo suñu borom ñu azza wa jal kon maa ngi koy ñaan nag maa ngi moom damay damay indil kan ci naafiq yi moo nettali benn xadis ahadithu rajul maanaam dama ci indi benn naafiq bu ci nettali benn bu ci wax sax laa wax ñëpp waxu ci amu ku ñaareel ki ñaareel xadis bi mooy xadisu Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu nga xam ne mooy ñaareel ki al-xulafaa ar-raashidiin nga xam ne moom la ñu doon wax ne sama xeel yii bu bu bu amee ñoo xam ne ay mulhamoon ñaa ngi ci biir la bokk ci ci ci ci ci beneen ci beneen lam Umar ibn ne moom ما سلك الشيطان يسالك الفجا آه، قط ما سلكت فجا الا سلك الشيطان آه، الا سلك الشيطان فجا غير فجك الله اكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقول عمر ميت ميت بوك نجي صحابه يي خا نتا نرجمو تا نيوم دنج كو ديغ سي يوسف علي صلى الله عليه وسلم كو ديبس بو نمي صحيح مسلم حديث بي من صحيح البخاري بو صحيح البخاري بخاري رسلنا حديث بي لو فك رسلنا حديث لو جوم نيت يون بخاري رسلنا كو سي

boo مسلم ci muslim rek toxal benn sanad boo xam ne sanad bi ko abi tahir mu jeexe ci nga xam ne abdullah abbas si jëmma ab saxaaba moo koy nettali wax ci ab ne sanad bi سند بن أبو طاهر وحرمة بن يحيى قال حدثنا ابن أخبرني يونس عن شهاب قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عشبة أنه سمع عبد الله بن عباس سند بلاد إيرا جاء الصحابة صحابة بلغنة الوقت صحابة صحابة بلغنة النبي عليه السلام يا مهم لو لغنة في الأبيض ابن عباس عبد بن عباس ما وهني قال عمر بن الخطاب وهو تكون أخذ من عمر ابن عباس رواية أي العتاب منك رواية متصلة له بحث ابن عباس بكرة الصحابي أبي النبي عليه السلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ابن عباس من عمر قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان ما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن تال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بتكفير أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو كان الحبل أو الاعتراف نيل حيفدك صحيح مسلم عبد الله بن عباس ما بن عمر بن ibn بين benn bés daa toog ci kaw minbar bi دار salaam daal di daal di wax yàlla da daa yónni yonent bi alayhi salaam ci dëgg jox ko ab téere bokk na ci la yàlla wàcce woon ci bi alayhi salaam bokk na ci gis nga xam nga li di firi am nax ñëwaguñ ci nag ndax laay ji fan la nekk ci kaam bi loolu lënt la boo xam ne dañ koy def ñi nga xam ne jànguñu wala ñi nga xam ne xamuñ li xew ñu nag comme que wàccoon nañ ko anamu ci kaam bi loolu dañ ci ñëw loolu xëy na bokku ci waaye liñ ci ñor rek mooy ndax yonent bi alayhi salaam raj mën a wala déet ak jàng àlla rañ bi sax wala saxut ak ndax ñi koy nettali naafiq yi ñoo xam ne wala déet am li mu ko waxee ak yi li mu wax ndax ci yahuud lañ ko jëlee wala déet yonent bi alayhi salaam amul xata daan ne bokk na ci la yàlla wàcce ci alayhi salaam mooy ayatu rajm amar ne ndax ayatu rajm boobu ñu wàcce ñun jàngoon nañ ko mokkaloon nañ ko ba ba jàppoon ba ba ba maanaam ba ba këru ko maanaam mokkaloon nañ ko ba dégg ba dégg ko xam li ñuy firi amar nee na yonent bi alayhi salaam daa rajm yonent bi alayhi salaam daa di rajm yonent bi alayhi salaam rajm na maanaam nit ci dund danañ indi ñan ñan la yonent bi alayhi salaam daa di rajm insha allah azza wa jalla waaye amar nee na yonent bi alayhi salaam daa di rajm ñun saxaaba yi tamit ginnaaw yonent bi alayhi salaam ñoo di rajm xam lii kon li day firndeel kon rajmu atte bi mos fa jug la fi kay mooy euh, maanaam tilaawa lafz bi waaye atte bi a fa jug ñu ko aseen Omar nee na faraja faraja mooy xadis mi ngi ci muslim mi ngi ci Buxaari ci numéro yi ma leen joxoon sànq yonent daa ne farajama rasulullahi sallallahu alayhi wa rajmu rajmu na ay nit ñoo xam ne dañoo njaal am borom kër Omar na ñun saxaaba yi dinañ asan dinaa dina asan Fatima ñu nit ñu rajmu waat koo bàyyi ndax bu ko bàyyi woon saxaaba yëpp dañuy dàpp même saxaaba yi am xam ko nas ndax ëpp ndax bu fekkee na àtte bu ñu nas yëpp réeree ko kon loolu loolu daa jomb lool daa jomb loolu ci jëmam xaj yàq dafa fi nub fi fi nubuwati nabi sallallahu alayhi wasallam daa jomb te ku ko saxal loolu mën na la génn ci kéefar loolu day xadax fi nubuwati nabi sallallahu a wa sallam amar waxtaan nee na ñun asam daal di yi ñi rajmu waat ginnaaw ma ragal nag jamono di dox di dox di dox ba nit jóge fa la ñëw naan man day rajmu gis ma ko ci alquran يسرق سبحان الرحمن قال عمر بن الخطاب رجل الله عنه ليلي فينا عمر بن الخطاب لقيا لير عسل أبو خان دنيا يعني إمام عمر بن الخطاب يالله دكاي إلهام حميد عسل أبو خان دنيا يعني عمر بن الخطاب دابوك تنيو جينا خان سنبر مور إلهام مور عمر بن الخطاب لبرة برد كنا نوخ نجك وحي رواتي واي وحي بيوك يدي دي عندك مم كم نيك كم نيك عمر وحي لبفهم كم نيك صحيح مسلم دمر دبونا صابور نجك عمر الخطاب يعني وافق ربي في ثلاث ملاك يلب نحن عمر الخطاب لأن من داي جون دنيا نيو ma ragal naa jamono ñëw nit diw seetaan ne man raj bu gis ma ko ci téereb yàlla bi bu ko defee nag kon raj bu du sharia bu ko defee nag ñu daal koy bàyyi Omar mooy wax de Omar daan ne nañ xam ne raj mu ci téereb yàlla lu wér la raj mu képp ko am borom kër muy góor wala nga am jëkkër muy góor muy jigéen bu pare daal di njaalo bu bu maanaam bu ay preuve taxawee ba bayyee taxawee ba ñu am ba charte yi charte yi nga xam ne ca la ñu saxalee ñu ko njaalo ba lépp taxaw kooko dañ koy raj Umar ibn Xattaab radiyallaahu anhu lii la wax léegi fii li ma ci ñor mooy ñëwaguma ci li Omar jëf fii li ma ci ñor mooy xadis bi Omar nee na yonent bi alayhi salaam moom rajmu na te waa ji ne rajmu ci yahudi la jóge kon yonent bi alayhi salaam lii mu def ci yahudi la ko jële kon kon yow amoo kon yow yow mi wax loolu kon amoo différence maanaam yow mi wax loolu amoo différence ak ate yi ñoom longa njaay ak malaaxir yi nga xam dañuy wax ne yonent bi alayhi salaam di alquran yi yonent bi alayhi salaam ci yahudi la ko jële yonent bi alayhi salaam xism doon tukki dem Sham xam nga yooyu malaaxida yi ñu ngi koy wax te ko nga xam ne suñu réew jamono ji ay ilhaad bëri na fi lool malaaxida yi nee nañu ku lu mel ne ñoom consor goog yi nee nañu dem alayhi dem ji naan dem ca Sham daan fekk téere mooy bible bi yahud yi yoroon far daan jëlee ba xaw a gën a yeewu nit ñi rek nax leen ba yàlla ko yónni waaye alxuraan ji du wax yàlla wax ay waxam la moom moom moo ko kon yow ba defaral nga gannaaw gannaaw yi def na raj mu na nga pare nga am fit na raj mu la jógee kon ki yaa ngi kon yaa yaa ngi mala xëy la moo la moo la différence loolu moo tax ma ne ko woon ubbi nga bunt boo xam ne maa lay may ay at wala ay ay weer ca kanam boo boo tuubaatoon dellu ginnaaw tuubal suñu borom ji azza wa jal amuk ixlaas da nga tabbi ci géejug ilhaad goo xam ne yaay gën a tarle nga xam ne jànguñu nag ñi nga xam ne dooy tam ci ilhaad yaa koy gën a tarle te loolu ñu aanamu ko suñu borom ji azza wa jal ko raj mu na xadis mooy ñaari xadis ne ko ay laay yooyu dañuy saxal dañoo bëgg saxal ba pare ba mu sax ba pare ñoo doog a ñëw ci munaqasha bi waaye saxal gi nag bi ñuy saxalee daa ànd ak munaqasha mooy dañuy saxal li ñuy saxal dana dajjaale wax ji mu wax ne naafiq ñoo ko ne ci ñoo islam ak wax ji mu wax ne ci yahud lañ ko jëlee kon ñetti tomb fi mu ne nii ngay dégg ci li fii ñu toll nii ba ca njëkk mooy xadis bi sax Umar nee na yuntu bi alayhi salaam raj mu ne ci sunu kanam ñun ñu jàngi ko ci moom ginnaaw yu raj mu nga boole ko xadis ba ca kaw yuntu alayhi salaam daane jël leen ci man raj mu raj jël leen ko ci man yuntu alayhi salaam wax ko ci làmmiñam fii moom daa wax ne naafiq yi Umar ibn Xattaab ndax daa bokk ci munaafiq ku ne wala déet loolu loolu ab laaj la boo xam ne na ko yaral gannaaw mu daa wax ne naafiq yi ñoko netali ni da sala moko def boy sahaba yi seen ak bëgg lu baax loolu wax nako nak bu ko weddee rek ñu indi ak audio bi ci penc bi sahaba yi seen ak bëgg lu baax ñu da koy jël légui Omar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa arda day nettal lakum ci moom ibn Xataab lii ma nettali du mursal saxaabi Omar da ka gis mom neena da fekk fu yutub alayhi salam rajmo moo yutub da raj mu koy gis ba far na ci wona ci wona ci Omar ibn Xataab mooy ibn Abbas nga xam ne ab saxaab moo nekk ci ibn saxaab nga xam ne nga xam ne ab sahaba moy nettali ci beneen sahaba te ñaari saxaaba yëpp kenn ku leen dégg ci asalaam amul kenn koo xam ne sa sa sa riwaayu an nabi asalaam mursal la xanaa mu nekk ci yenn yenn yenn li lii kon day firndeel kon wax ji mu wax ko benn Omar Omar ndax daa bokk ci munafiqoon yooyu nga wax ne ñoo nettali xadis rajm ñoo jël ñoo dem ci téere yahudi jël fa rajm daa koy indi am na ni sax ci jëmmam yahudi ci jëmmam musu ñoo yahudi ci jëmmam di daan nëbb rajm loolu dina naa ko leer incha allah azza wa jall yahudi ci yutub alayhi salaam yahudi yooyu ci jëmmam raj bu mi ngi woon ci raj moo ci jëmmam dañ ko maanaam dañ ko doon daw dañ ko doon daw maam ñi muñ ko woon wax ñi muñ ko sax feeñal am na ci xóor yoo xam ne ñu jëmm xamuñu woon sax raj ci jëmmam am na ci xóor ñoo xam ne xamuñu ko woon maanaam ci atal lañ ñëw yéen atalaa xamal leen ni yéen la yàlla wàcce woon ci yéen doonte taxrif ñu ko sax am na lu ci nekk raj maanaam yahud yi ci yéen atal lañ xamee ñoom raj mi ngi ci biir ginnaaw ba ñëw na ci lafz ahmad dinaa ci ñëw insha allah wa azza wa jal waaye kon foofu xadis bi tamit maam leeral xadis bi day firndeel kon yéen alayhi salaam daan raj mu رجم سخ لي ندخ ندخ يد أتبي يوم رتي وخوي ركوج في فعلية رجم لا يدك صحابي فك كون نقول فك دار جاي وحنا نحن رجم عمر نخطاب كنا بق جنا أبو بكر الصديق علي أبي طالب من جنا أبو بكر الصديق خالد كي قلت خالد جنا يد أتبي أبو بكر الصديق كم نيو سهل البخاري محمد بن حنيفية دون علي يعني لا عندما ما رأيت ما باي علي ركول كم موجود خالد مي من جنا كي قلت خالد خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم من سبقال ثم عمر حديث بابو ما نام ñëw na ci la ñëw na ci lu mat fan yoon wala lu ko ëpp ci musnad Ahmad bin Hanbal nga xam ne Ali moo koy wax Abu Wali Bukhari kon Umar bin Xattaab mii bu fekkee daa bokk ci ñooñu da ngaa wax naafiq yoo ko nettali kon Umar bin Xattaab bokk na kon lazim la nga wax ne kon Umar bin Xattaab daa bokk ci munaafiq te loolu moom bu ko waxee rek ay mbiram ay mbiram dana feeñ dana maanaam xëy na eh, lu mu daan nëbb ci bëri ba dana feeñ insha allahu azza wa jal kon loolu loolu loolu loolu tamit bokk na ci yi nga xam ne wax na ko lii xadis bi day firnde ne kon rajmu ñu koy wedd ji rajmu lu sax la ci sharia yi asalaam moo ko wax waaye firnde ne ñu koy nettal luñu ay naafiq maa bokk ñu ci naafiq yi te man dama ko def yi kan ci naafiq yi moo nettal ahadis rajmu ko moo amut bal sax naafiq yooyu mu wax mun lajit wàññi naa ko mun mënu ma ci limal juróom-ñetti nit kii kii ak kii ak kii ay naafiq dañoo bokkoon ko bëbëte gëmuñ ta dama ko def te te du ci ñëw xalaatu ko sax kon euh la ñetteelu hadith bi kon Umar ibn Saamit jàll na awra xata jàll ñaar ñi ñu nekkal ñu nekkal ko ci lima jitu waxako waxagul bi moy Abi Hurayra radiyallahu anhu arda allahu akbar nga xamni moy rawiyatu sahaba wa xaafiduhum ki ep lu ngeen ci ci yonent alayhi salaam mooy Abi Hurayra radiyallahu anhu arda Abi Hurayra nak degon na ngor sëñ bi moy Cheikh Baye di am lu wax ci mom

رطلنا كذلك في 5270 رطلنا كذلك في 6891 رطلنا في 6812 بخاري رطلنا حديث بلوات فك يوم ودلوك أب مسلم رطلنا كو نياري يوم كان موي نتل حديث بيتي عليه السلام أبي هريرة لم نتل نخ مرسل لدي دكو غيس maanaam ñu da koo fekk da koo fekk xam nga lii kenn du wax ne kon abi abi hurayra benn abi hurayra dégg na ci yunus alayhi salaam bal moo ëpp lu mu moo ëpp lu mu nettali ci yunus alayhi salatu wasalaam ñaaral bi lii muy nettali da ko gis léegi li mu ci bëgg saxal mooy nañ xool gannaaw moom daa wax ne ñi koy nettali naafiq yi ñoo koy nettali saxaaba yi seen ak bëggul baax daa koy nettali nañ xool bii mi ci muy sax yu muslim yuntu bi ali muslim sanad bi ñu tàmbale ci abdulmalik ibne shuaib ibne lays ibne saad mu teere ci said musayyad an abi hurara lan la abi hurara wax abi hurara neera na ataa rajulun min almuslimina rasul allahi sal allahu alayhi wa huwa fi almasjid fa naadaa fa qaala ya rasul allah inni zanaytu فأعرض, فأعرض عنه فتنحى, فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى كان ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات أربع شهادات دعاه رسول الله فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال لا فقال رسول الله اذهبوا به فارجموه الله أكبر يدب عليه السلام ما يوخ آه، ابن شهاب الزهري مسلم تكتب ابن الذهب الجهري نعم فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول كنت فيما رجمه nga xam ne kon sa saaba dañ ko fekk gis ko tek seen bët yi ak di ko jëf te loolu gëna gëna léré ci ci hadith bi musta xadis bi rek ci musnad abi yaaya di xadis abi saïd al khudri dina ci way leeral lek ci waji wax ju reey jim wax ni mu rëyee fi mu fa akhbarni man samia jabir bn abdullah yaqulu kun fa kuntu fi ma rajamahu fa bil musalla falamma azraqathu al-hijaru haraba fa adraknahu bi harra rajamnah الله أكبر